général bu moom Mamadou Matar Cissé ba mu fa nekkee da doon wax fi mu ne nii am nañ courant macha allah lépp nice quoi. Mhm. tout est RAS ba nga xamante ne sénégalais yi seen xel daloon na jëm ci wàll bi gis nañ ko logo yi nii ñu présenté ci ci télé bi sànq ci élément bi ak logo yi nga xamante ne ak xar kanam bu bees bi nga xamante ne tey Senelec moom lay wone c'est différent changé nañ ci couleur changé ci leneen ak leneen ba sénégalais yi seen xel dafa daloon ne RAS ku tëdd rek nelaw courant ñu jékki-jékki nañu hausse donc day metti bu baax a baax mais asma dinañ ci revenir ci yeneen émission taxawandi ci li nga xamante ne moo di courant expliquer ko mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan mais comme tey ni ma ko waxee rek wàllum secteur informel moo ñu intéressé donc secteur informel bi boo ko tuddee rek comme ni ñu ko waxee la dernière fois menuisier bi danga ko ciy fekk parce que tey amaana am na noo xamante ne menuisier bi da koy liggéeyee day soxla courant pour je sais raboter ay bois am ak. tailleur tailleur ba mhm. voilà bu ñu yóbboo suñu ñaw moom préciser na ko nee na déjà coupure courant bu bëree sax sonal ki nga xamante ne moo di tailleur waxantuma laak nag yokkute courant ñu gis itam beneen liggéey bu bu yees bu ci bokk ni les menuisiers métalliques léegi ñu bëri lool au Sénégal macha allah ñooñu itam dañuy soxla courant ngir rek bu ñuy bu ñuy bu ñuy liggéey donc yokkute courant bi lan la euh, lan la gàllankoor ci li nga xamante ne moo di secteur informel yokkute coupé courant bu amee rek seen production day gën di cher par exemple bu fekkoon tey courant bi mu ngi jar ci ñoom fukki dërëm ñu indil leen ko cent francs day dolleeku ci coût de production bi donc ñoom il faut que tey bu ñuy jaay asma ñu dugalal la ci loolu comme par exemple tey boo doon ñawee supposons cinq mille francs courant bi yokku na ci moom il faut que mu jaayee la peut-être mille francs wala six mille francs économiste yi nag li ñu wax moo di à chaque fois rek bu yokkute amee ki koy yëg mooy ki nga xamante ne mooy euh, consommer le produit <laughs> voilà le produit fini comme euh, par exemple tey Yacine mi nga xamante ne moo yóbbu ñawam chez le tailleur moom moo koy yëg parce que euh, tailleur bi moom na ci génn rek na génn ci liggéey bi dina ne ah Yacine vraiment courant bi cher na cinq mille francs nga doon fay cette fois-ci il faut nga fay ma sept mille francs parce que damay fay courant Voilà. T'es, t'es, t'es, euh, ce qui justifie aujourd'hui la hausse, c'est que l'électricité n'est plus subventionnée. Madame Kourambe, non, non, euh, non, qui... non, ce n'est pas ça, au euh, Ce, n'est pas que bu bu fekkoon dañu dindi subvention bi carrément donc peut-être que sax niñ ko waxee dina am ay nit ñoo xamante ne. subvention bi dañ ko dindi. tey duñu am tey tey tey am jafe am na si amaana ay réajustement yi nga xamante ne def nañ ko bëgg nañ suqali peut-être keesu Sénélec bi nga xamante ne amaana tey. am na ay jafe-jafe mais loolu yëpp dinañ ci dikkaat ci yeneen émission pour gën ko leeral incha allah mën na baal ma baal ma vas-y Passane vas-y vas-y vas-y l'actualité l'emporte euh, <laughs> c'est l'actualité du plateau vas-y on y va Passane doo ko bàyyi mu yegg non bàyyi bàyyi bàyyi sànni si tuuti seen bàyyi courant bi ku dindi subvention bi. waaw boo xefee ngoon ngoon ngoon. ñu ñu délogé la. ñu délogé nga jot sa lundi. ndox de xam nga dafa yokk sang. nga jot sa lundi ñu ko uh-huh. yokk na. Uh-huh. ku ko dindi. Mm. waaye nag waaye nag attention vu facture yi ni mu seere mm-hmm. est-ce que dindiwuñ ko te yëguñu ko. non buñ ko dindi woon damay laaj dama ne. <laughs> parce que dañoo am affaire ak ñoo xam ne dañuy wax dara te ñuy wax du am. ñu waxante dëgg rek te tax nañ nañ bàyyi les formes ak ñu wax dëgg te tax. yàlla ñu tiim dama ne. nguur bi fi nekk. Mm. depuis 2012 à maintenant bari na lu ñuy wax te amul. dama ne est-ce que dindi subvention bi te yëguñu ko te waxuñu ko. alors damay laaj doy na waar paasan parce que li ñu ci war a leeralal askan wi amaana bëri na euh, bu demee sax am na ñenn ñi ngi naan peut-être tey population problème de communication la ñu am xam nga tey Asma mënuma ñëw ne la Asma est-ce que ça va tey le matin ma gis la ma ne la est-ce que tout est nickel nga ne ma waa nice alhamdulilah euh, même pas une heure de temps nga ñëwaat ne ma Binta rien ne va kon man je vais me poser des questions wala ma am loolu nag ma xaw a dal Sénélec ak euh, la population macha allah tout va bien ba suñu courant sax amaana ñeneen euh, yeneen réew dinañ ci jote nga xëy tey yokku courant donc day indi day installer benn climat boo xamante ne confiance dootul dox diggante euh, les consommateurs ak kër le mais juste comme ni ma ko waxee tey nekkul Senelec euh, en tant que structure moo ñu intéressé mais ñi nga les impacté ñi nga xamante ne amaana yokkute courant bi dina laal seen ay business donc voilà. jaaykat yi mooy ñawkat yi. jaaykat yi euh, borom salon de coiffure ñoom Luisa. ah en ah, ñoom Luisa moom dañuy consommer courant. ñoom seen yoon nekk <laughs> ñoom ñoom. ñoom am seen télé non non non non ban télé. gaawul frigo yi dañ koy fay. deux heures de temps lay tàkk produit produit bu périmé seen yoon nekk ci ñoom ma dañ koy jaay voilà voilà li mu wax ni conséquence la en plus man ñi ma gën a bàyyi xel man personnellement euh, mooy euh, peut-être benn suñu benn yaay wala suñu benn sœur bi nga xamante ne dafa amoon frigo à la maison hmm. doon ci jaay glace hmm. wala di ci jaay crème xam nga bu hmm. yokkute courant bi amee ko nga xamante ne tey ci la doon suturloo mën na dem ba abandonné business boobu te leneen itam euh, loo xamante ne nguur bu Sénégal war na ko bàyyi xel moo di par exemple Luisa tey elle gagne cinquante mille francs chaque fin du mois doon fay courant am euh, dix mille francs léegi ñu yokk courant bi këram. Mhm. mu war a fay vingt mille francs lan moo ko dese trente mille francs. Mhm. léegi tailleur bi mu doon fay tey cinq mille francs bu ko nee dix mille francs. Euh, déjà trente mille yi dem na mu dese vingt mille donc yokkuñu euh, salaire yi pouvoir d'achat bi tey mbir yi di gën a yokk di gën a cher ndax courant bi moom dina laal fépp amaana tey benn pàcc lañ ci indi mais bu subaa dinañ duggaat yeneen ruq-ruqaat. même si milieu de la pêche tamit dañ koy sentir parce que ñoom dañuy glacer seen jeunes yi. c'est-à-dire bu ñu mm-hmm. bu ñu jot glacer dañuy yokk mais eh, mel ni nit ñëw ci salon di defar boppam nga yokk prix bi loolu pour nga expliquer ko peut que nit ki duñ ko ko comprendre et puis Luisa dina obligé ne ko damaa yokku xaw ma brushing bi xaw ma. parce que courant bi yokku na mais si jeexital bi yëpp population bi ñoo koy yëg. parce que moom elle va s'en sortir. Mm. quoi qu'on puisse dire dina ko yokk ba génn ba salon am bénéfice. Mm. léegi kële moom euh, non seulement facture courant am yokku na mais li muy dem ay transaction ak yooyu defar boppam ak leneen day yokku donc euh, vraiment. tey le sénégalais lambda sonn na. mais pas Assane tey jii euh, il y a une rumeur sur la le, l'augmentation à 7 ou 10 pour cent des salaires n'est-ce pas mais aussi il faut savoir que l'infor le secteur informel c'est des gens des des des jeunes entrepreneurs je je dirais même qui ne sont pas lettrés qui apprennent juste un métier et qui exercent pour euh, pour pour survivre. Ouais, euh, pour, euh, euh, augmentation salaire bi ngay wax mooy ñi nekk ci secteur privé bi la ñu waxoon ne que état bi jublu na si dama am. benn kii dañ ma baal de ak ñu ñuy seetaan ak cër bi ñuy jox nit yi ak samay limite ak samay ñàkk-ñàkk ak sama ñàkk xalaat ak ñàkk xam-xam ak tout ce qu'on veut mm-hmm. je répète nous sommes dirigés par des gens qui ne nous respectent pas benn beneen bi asma président Macky Sall li ko gën a sonal ci organisationnelam mooy maanaam tak tak tak pour def tak tak tak tak. maanaam pour bind rek daal di jàll. oui c'est-à-dire c'est xam nga asma bu ñu ñëwee toog fii ñu ne dañuy def émission télé. Mhm. ñu ne boo eh, eh, toog leen kii on simule ah. tey na on fait training ñu simuler similation la. Mhm. maanaam man lu ma dund ak nguuru Sénégal bi fi nekk. Mhm. defoon naa nguur du yées. ci contexte ba ca jamono ba. Mm-hmm. li ma dund si ñett at yu mujj yi nga xamante ni moo doon président Abdoulaye Wade mu yore woon réew mi doon ci moom peut-être forcément au vu de ñi ko waroon parce que ñi ko waroon ñu ci tey ñoo ànd ak président Macky Sall. Mm-hmm. donc ñoo ñoo yàq fële mm-hmm. ñëwaat yàqaat fii. et on les a le premier jour bu président Macky Sall lankee li nga xamante ni mooy euh, transhumance. on a applaudi. beneen jour bi mu ñëwee ne bon après tout. <laughs> daal di koy defal apposé nangu ko. Mm-hmm. ci la problème yi yëpp tegloo ni affaire yi jaxasoo. Mm-hmm. tey le président de la République du Sénégal wàllu courant beeg tout ce qu'on ak rapport yeeg lépp. Mm-hmm. lenn rek mën a dimbali lenn. te pat te nag ku la nax benn yoon nax la ñaar ba ñett ba ñeent pour nga gëm ay kàddum dafay jafe mais lenn la mën a def te rupture bi foofu lay déparé li ñi nga xamante ni dañ leen yóbbu ci ci rapport. mu toog xool ne justice na def liggéeyam. Mm-hmm. bis bu koy def ñun ñuy amaat peut-être benn yaakaar ci moom. Mm-hmm. mais malheureusement on part on part sur une commission donc loolu dafay wëy moo tax yi muy wax ni yi ñu dund nii et ça c'est de mal en pire ça ça ça va être compliqué ça va être plus compliqué encore. frustration bi day yokk. ah en tout ndox mi bu euh, yokk courant bi yokk moom. on est asphyxié est-ce que ñi jàngul est tey Binta dinañ dem ba am sax euh, euh, cawarte taxawal dara. léeg-léeg da ngay gis que Louise tu le vois c'est souvent ku ñëw ne la stage laa bëgg nga jàngal ko ba mu dem ba mokkal bopp mokkal maquillage ne xaaral ma toog sama kër tàmbale def ba am sama clientèle parce que le secteur informel pour ces petites choses là est-ce que ñooñu est-ce que c'est c'est pas une façon de les décourager indirectement waaw ouais, je dirais que euh, secteur informel dafa am solo ci